maa ngi lay fay Kandé di la nuyu yooyu itam di la ziar bu baax. maa la raw di la ndokkeel aussi ci sa gan gi a nga am sa kër. am na ko yàlla may fanu gudd. d'accord gis nañ temps yi fu mu toll nii actualité bi dafa xaw a euh, tiital ñëpp. Mhm. Euh, opposition bi amoon fii ab marche ñu tere ko euh, nguur gi daal di jël ay forces de l'ordre yóbbu ko ci këru yenn acteur politique yi ku ci gën a ràññeeku ku ci gën a fësle mooy Ousmane Sonko bi nga xam ne dañoo bunkeriser këram euh, ñu bëri jàpp ne loolu lu war dafay daal di salfaañi lii droit euh, bu nga xam ne citoyen bi am na ko pour muy mën a di en dem di dikk euh, loolu nax na ko jàngatee ci réew mi Sénégal. waaw jërëjëf Kandé c'est-à-dire il faut nit ñi comprendre que ni Sénégal pays de droit la état la ñu yor. yorunu ay association yàqkat wala yu gën xamul il foo ñu respecter l'état du Sénégal respecter ko d'abord mooy respecter suñu bopp tey état moom rek xam ci affaire sécurité réewam nan la ko war a doxale xam nga réew mi méttiwul réewu Sénégal méttiwul mais naafeq gi moo fi bari nit ñi dañuy gis loo xam ni mu ngi fës ñu koy contourner di ko jéem a jaarale feneen donc naa fekk googu il faut mu deñ Kandé Sénégal dëkk bu baax la Sénégal ay gor fi dëkk ay nit ñu baax ñoo fi dëkk ay sëriñ su baax a fi dëkk donc ci dina nangu kenn yàqal na ko mënunoo tëb nii danoo jàpp ñii wala danoo bënkarise ñi parce que suñ ko defee rek am na lu état xam moo tax mu def ko loo xam ne ñun dépassé noonu xamuñu ko ñëwoonu sama kër yi ko ñëwoonu sa kër bancarisé ko jàppunu ma jàppunu la donc nan respecté état ba état pare li muy def xam nga lu may bañ man médecin après la mort di caaxaane dara walla di wax naafeq yi nekk yi wax ñuy maslaa ba musiba am ñuy soog di wooyu médecin bi médecin après la mort baaxul nan tàmm di waxante dëgg tàmm gëm dëgg te respecté sunu réew réew mi si yàqu ñun ñëpp lay yàqul tey nag Sénégal dafa bari ay révolté de la ku amul dara sax dafa nga ni Macky Sall la ku dara dal dafa nga ni Macky la or que àddina du noonu nan gëm yàlla ñun ñëpp kenn amu fi dara yàlla rek moo am yàlla mooy joxe yàlla mooy xaj mais du du keneen. Hmm. Euh, ah, bu ci Euh, def na sortie boo xam ne kenn xaaru ko woon parce que moom quand même gëjoon na génn di wax ci mbirum politique. Mhm. Euh, mu nii euh, fu mu toll nii processus électoral bi di doxee respecté wul processus bu normal bi waroon nañu mën a bàyyi ñëpp ñu bokk waroon nañu mën a respecté liste yi logiquement xel warul mën a xalaat ci benn liste ñu retenir en tout cas proportionnel di éliminer majoritaire mu doon sortie boo xam ne bett nañu bëri surtout ñeen ñi nga xam ne. doon ngeen liggéey ak moom foofu ci en tout cas ci majorité présidentielle nga jàngatee sortie boobu ci jamono ah, ah, la man moom la ko jàngate ami Aminata Tall yàgg na def lu mel nii de depuis Ablaye Wade chantage ñëpp xame nañ ko loolu. Hmm. sortie bu malhonnête la benn su fekkoon ni mu ngi ci biir ba tey du ko wax nekkatul ci biir et pourtant mel na ni ku nekk ci biir ba léegi parce que mi ngi dëkk ci logement. bu ko Macky Sall joxoon état hmm. dafa waroon dénoncé boppam génn logement boo pare soog di wax mais mënul di nekk ci privilège yi ba pare parce que amatoo li nga amoon ngay xañaate man nag leen rek moo ma ci metti presse bi suñuy bind toujours dañ ciy boole lu ci bokkul parce que liir naa dégg naa ci rajo bi tey ñu ni dafa jóge ci sama kër sang bu baax boobu Serigne Moussa Nawel waaw moom moo ko wax mais ba mu demee ca Serigne Moussa Nawel tudd fa waxi politique waxu fa waxi Macky man ki sama bopp Serigne bi sama Serigne sama xarital sama Serigne sama xarital. dana bi ba fa soxna si demee xam na ni soxna si xaritama de. jigéenam it ndax ñoo bokk dëkk région de Diourbel muy jigéenam di xaritam mais waxuñu fa wax loolu. Aminata Tall ba mu fa demee dafa am ku mu yóbbu woon moom ci boppam muy politicien di sëri di Alassane Sène ya Alassane Sène la ko yóbbu man sëriñ bi laa waxal de bi laa may wax dafa dama bëgg mu leer di Moussa Nawel maa yëkkati sama téléphone woo ko parce que dama booba dama jaaxle parce que dama xam sëriñ bi du waxantu sëriñ Moussa sëriñ Alassane Sène dafa yóbbu di ko présenté di ko wax mu ñaanal ko sëriñ ni ko fii de ku fi dugg it sëriñ Touba rek a lay ñaanal ku fi def loo xam ni lu dëppoo yëpp sëriñ Touba la ñaanal nga sa bopp fa lay yem waxu fi waxi politique waxu fi waxi leneen ca sëriñ bi ci boppam dafa gërëm Macky Sall mu wéral ma ko ni ma Macky Sall man de. lépp lu ma ko mas a sant wala lu ma ko mas demande defal na ma ko ca man mosuma ko defal dara xam nga sëriñ bi moo baax reconnaître que ni moom mosula defal Macky dara mais lu mu wax Macky Macky dana ko dana ko defal dana ko ñaanal dellu nag mu yi jox boppam ba mu jeex takk mun taxa sëriñ sëñ mun sëriñ Mountakha Mbacké bëgg Macky te sëriñ Moussa Nawel ku mun Mountakha bëgg mu bëgg la mais bu nu seen politique yi nan bàyyi di ci def trafic d'influence dem ziare ji sëriñ génn di wax ni sa sëriñ ba loolu jógee mel ni sëriñ bi dafa laa jox moo dor wala yooyu sëriñ bi waxul moom ci loolu sëriñ bi le contraire estime bu rëy la am ci Macky Sall ma xam koy mu wax ma ko kon nan bàyyi trafic d'influence yi ñuy def dem ci kër sëriñ jox ko sa àddiya ziare ko génn dem sa yoon looy def it nga def ko jël say responsabilité boobu mat sëkk. ànd ak bu mu xañ nit mais na ko wax am na droit wax ko am na droit jëlee responsabilité te responsabilité mais buñ ci taqal wala ñuy jegewaale di profito wala ngay waxi journaliste parce que journaliste yi suñu yëgu su leen ko waxul woon duñu xam ni dem na Touba bay ziyaare ji. booba sax politique ko fa yóbbuwoon parce que dafa demoon doon présenté ji Cheikh Alassane Sène sëriñ bi démb bërki démb lay soog di gis Cheikh Alassane Sène xamu ko woon sax donc bu ñu profité ci yooyu ku mu neex ban nga défendre li li nga sentir mais nañ ci génne sëriñ si ak di def ay trafic d'influence loolu moo kon pour commencer bi donc seen point de ci ni réew mi doxee ba ñuy critiquer quand même ci doxalinu nguur bi Mankeur Ndiaye nee na Aminata Mbengue Ndiaye a tout son soutien que donc moom aussi xam nga xam nga man je suis même déçu Mankeur yëpp dañ ko estimé woon ñëpp a ko estimé woon ndax yaram tegginam ak euh, vraiment euh, gentillesse am ak correction mais bii yoon daf ma décevoir et puis ces gens de l'APR là ak ces gens yi nga xam ni kenn xamu leen woon su doon Macky Sall du nekk ministre du nekk directeur du dem ONU du dem fenn le président Macky Sall moo leen sepp ci 17 millions d'habitants yi def leen lim leen def ba nit ñi xam leen ku ci am ñoom ñëpp am nañu numéro téléphone Macky Sall ku ci bëgg a jot président Macky Sall da ko jot soo amee looy wax président Macky Sall nga woo ko wala nga def seete ko wala demandé ko audience soo koy critiquer ko entre quatre murs wax ko li nga koy wax mais bul profité. ci sorti benn femme wala sorti benn politicien pour yow nga nekk ci ginnaaw pour di ci en waale sa message su suy félicité Aminata Tall su koy su amee soutien fit wi Aminata Tall am ba génn wax na ko am génn wax am na droit wax opinion su mun la dem ci président Macky Sall en toute sérénité en toute avec tout le respect bi nu am seen diggante wax ak moom ni ko réew mi lii parce que Macky Sall a besoin de ça nit rek la bëgg na ku ko yedd bëgg na kuy waxtaan ak moom mais nekk ci presse bi parce que kenn wax na rek nga bëgg wut buzz yooyu itam bokkaale ci wax ji di soutenir kooku affaire traîtrise la c' est c' est des actions de traître man loolu accepté wu ma ko Macky euh, Mankeur vraiment m'a déçu ci fekkee ni loolu moo ko def ca moo ko def parce que daf ko tweeté voilà donc yooyu c' est des actes de lâcheté des actes de lâche Macky Sall jiwu leen ko bu ñu defee nii affaire bi dafa jeex affaire bi jeexagul yàlla rek am xam lu jeex ku nekk yi daw di jaar nit ñi di jaar ne nan bàyyi yooyu. Ah, dañoo tiit. dañoo tiit saalit. ji koy jaam bëgg leen a jàpp ku nekk yi daw ku nekk yi wut foo laqatu ci affaire bi dafa jeexul yàlla rek ay jeexal Macky Sall est très gëm na li mu gëm xam na li mu xam kenn du dee ñaari yoon beneen rek leen di dee waaw nan gëm yàlla. Ousmane Sonko woote na mercredi casserole. casserole nag c'est très dangereux hmm. parce que yooyu ay xërëm sax laa ko teg ay xërëm yow mi dëkk foofee ca xam nga moom ngeen di xërëmee yooyu day yokk ndóol ci dëkk ñoom nag comme xëy na amuñu lu nu wax wala amuñu euh, seen danoo ndóol bëgg ñëpp ndóol képp ku bëgg a yokk ndóol nag teel say casserole di fëgg mais casserole soo demee ceeb bu sacré soo demee yëpp xam na ni day yokk ndóol kenn du ko tëgg ci nawet surtout timis réew mi nag su fekkee ne dañoo bëgg a yokk ndóol nañ jël seeni kasoor merci beaucoup